رمنا شكر الذي بالفاتح والنور ما زال

Euh, gannaaw bu ñu leen nuyoo bu baax ziar leen di leen ndokkeel bu baax ci eh, weer yu tedd yi nga xam ne ci lañ bàyyi ko mu di euh, shahru safar bi nga xam ne euh, moom lañ njëkke ak guddi ngën ji mbindeef gi nga xam ne moom lañ génn bërki démb sallallahu alayhi wa sallam di guddi gàmmu ñoo ngi leen di nuyu bu baax ah, nuyoo bi nga xam ne moom lañu lislaam tànnal muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gannaaw loolu nuy sant bu baax ci am mbégte ci eh, seq gi ñu seq gi yéen jotaay bi te yàlla dogal ñu di ko defee ci barab bu tedd bi mu di jumaay Serigne Touba ci Xaadimu Rasuul wax na si gannaaw bu ñu leen nuyoo ba noppi di leen jottali nuyoo kilifa gi nga xam ne on na yàlla dogal mu jiite mbooloo mi ñu sëriñ Bousso bi Boussoom sëriñ Mbàkke Kanni moom la sëriñ Saalix radiyallahu anhu joxoon liggéey bi euh, tegoon ko ci loxoom depuis 1991 ba sëriñ Saalix nekkee xalif général de Mouride ba am 3 mois ñetti weer ci la ko joxoon liggéey bi daaloon ko ci daal yoo xam ne yu ama am solo la euh, muy liggéey muy Eh, mbooloo moo xam ne ñoom lañ ràññee si ñu takkatoo nii wutal bis jumaa ji di ko taxaw waxtu wu ne moom lañ ràññee ne moo ci njiitu muy daayiratu asxaabul jannati li eh, nga xam ne mooy seetal jumaay Tuubaa ji muy bu jumaay Tuubaa ji alxames bu ne kon bu eh, leen dee leeral turu daayira bi ak liggéey bi kañ la tàmbale woon loolu mën naa ko cee tënk la ca tegu itam mooy daayira bi li tax ñu tànn bi su alxames doonu duñ tànnal seen bopp waaye sëriñ Saalix ci boppam moom mi joxe woon ndigal li moo leen tànnaloon bi su alxames ne alxames ji dee leen ko seetal jumaa ji ngir waajalee ko ajjuma ci ndax ajjuma bu ngeen seetloo bu mu fi daayirat asxaabul janata jaaree ba jàll euh, ajjuma ji ku ñëw boo yur si jaada boo lalit fa la neex mën ngaa toog say yére du taas du def dara te loolu jaar gi ñu fi jaar euh, ba euh, seetal seen kem kattan ci euh, li ko waral ci la bokk kon bis alxames doonut bis buñ tànnal seen bokk waaye sëriñ bi ci boppam moo leen ko tànnaloo sëriñ Seydou. waaw liggéey bi moom programme bi mooy ñun ñëpp fi lañu jullee ci fajar. chaque jeudi boobu nga wax alxames fii la ñuy jullee si fajar euh, buñ xasee julli fajar ba tàmbalee liggéey bi kenn amul fenn soxla lu may liggéey bi dafa àgg euh, kenn ku ne bu dee góor ñi am na wet gu ñu tàmbalee am foo xam ne fa la yam yem jigéen ñi itam am na ci ndax liñ fi jublu ci loolu mooy jaxasoo bi la ñu liggéey bi dafa dafay doxe ci anam yoo xam ne bëgguñ nattablu ñun ne sëñ bee ngi jàkkaarloog ñun waaye itam jëmmam bu ko suñu gët doon gisit dañuy bañ di ci doxalee noo xam ne nii sëriñ bi moom ci boppam dana am loo xam ne su ko suñu bët doon gis dana ne lii kat defee leen ko nii defee leen ko nii dañ ko bëgg a defee noo xam ne euh, danañ am yaakaar ju wóor ci ne euh, mi ngi ñuy gis waaye bu eh, ay gëtam jakkaro na ñun ñu itam suñu gëdd jakkalo ñu itam man nañoo bañ a terale nangam ni ndax niñ koy défé dëppoo wut ak bëgg kon programme bi eh, goor ñi amna na fu ñuy tàmbali am fu ñuy yem jigéen ñi amna té loolu jaxaso bi lañ ci bañ euh la ci tegu itam moy mbolam soxna yi fi ñëw fu ci nekk rek euh euh référence am moy soxna jaar ndax mo gëna a té doyna sëkk référence ci ko xamni bëgg nga ag ci ben dayo bi ci seenu melokan seenu col seenu waxen euh seen pass pass ndax am na ñoo xam ne fi ñu jóge sor na lool am ñoo xam ne sax ñu ngi jóge ci département yi ñu fi jóge am na ñu jóge région Diourbel ñu jóge ba Louga am ñu jóge ba Saint-Louis sax am na Dakar am na ñoo xam ne par 15 jours yu ne dañ fay di ñëw euh, buñ jëlalee benn alxames di ñëw ji liggéey si am na euh, dama la limal yooyu rek ngir tënkal la ko euh, bu dee dëkk dëkkaan yu ndaw yi nekk moo xam kajoor gi la wala ci jolof gi wala ci bawal gii ñu ne wet gu nekk rek Euh, département yi euh, mbooloo fay bàyyikoo di ñëw ci liggéey bi ngir jëmi Sëñ Tuubaa te kenn diggu leen fi lenn loo xam ne war na mën a tax ñu ñëw lu may payoog suñ Tuubaa gi ñu ci yaakaar bu ëllëgee

xol islam daf koy jangale mak dafa am suñu ag fo xamne day nagu ci lool euh budé jigen la go xamne tol na fofu dañ la laaj bala ngay dugg ndax xam nga jigen ji wara dugg ci juma wala jigen ji fa wara dugg so nee no xam nga ko ñu ne la waaw ben point ba ca tegu moy nangul ku fi dugg di soppi ca kanam wala ngay yok sa kawar dara wala ngay sol mm, naka su du non lo xam ni itam comme ni ma ko waxoon legi serigne bi ci euh bu la won ak yow da nga xamne begut ci li loolu dañ koy watandiko ci biir dugg waye itam bu lolou jàll bu fekkee ne góor su la nexé tay tay tay man nga ñew euh wa li ma yima la wax ni soko xasse xam rek ni ki warna wara war a dugg si jumaa yi wala muru fe fee mën dugg rek la ca dess téré wuñ la ndax jumaa eh, wuñ ko jigen mu koy julli téré wuñ jigen mu julli si jumaa waaye nag jigéen ji wara a dugg si jumaa ji fu wara a dugg su ko xamé lislaam dafa am fuy fuy jigéen toll foo xam danaan ko mooy ñu la nga dugg fi jàkk nga jaar fi jàll sax mooy ñu la góor am na am na lu koy loo xam ne nii bu nekkee ci woon dañ koy wax ne ko mooy ñu la nga jaar si buntu bee jàll si buntu bee loolu na am waaye amut add yoo xam dañ naan la faaw nga àgg euh, cinquante ans faaw nga àgg soixante ans faaw nga àgg soixante-dix ans déedéet loolu nag dimbalal sëriñ bi ñu dimbale moo waral ñooñu rek ñoo fiy liggéey fi ne dimbalal sëriñ bi waaye nag tëxul nag ñu tëral norme yooyu daan ne ku amul nangami at yi doo fi la ca tegu itam mooy ñi fi dugg addiya yi ñuy joxe ñoom ñoo ko coobatiwul seen bopp di ko joxe waaye nekkul loo xam ne dañ ne la boo ko joxewut wala nangam doo bokk ci liggéey bi déedéet ñoom ñoo toog ba yàgg ñu ne dañoo bëgg a siyaare ji Serigne Touba Cheikh eh, xam ne am murit warut a ab sëriñam ci loxoy neen ñu dajale seen addiya ngir buñ demee nuyoo ko sëriñ bi addiya jooju ñu doon jox nañ ko fi seex Cheikh Mahamadou Lamine Baara eh, moom Cheikh Mahamadou Fadal yàlla na ko yàlla dolli ay ngërëm Euh, jox nañ ko fi itam Serigne Touba mi fi nekk yàlla na fi yàgg te wér muy Cheikh Sidi Moukhtar ba ci bañ ko mujjee yóbbu yàggut muy ab lim mboq am solo la ñoom ñoo ko jaayante ngir di ko yóbbu ngir Serigne Touba luñ fiy dajal rek ngir loolu jëmu ju tedd jooju moom lañ koy dajal ngir Serigne Touba. waaw xam naa lim bi moom ngir ñu xam ko xam naa ne yomb na waaye yombut yomb na yombut ndax waaye daal xam naa lu gàtt gàtt euh, euh, moom junni junni nit. ak juroom ñett témèr ci yo xamné ni nii nattable wuñ seen tour ak seen sante mom mi ngi bokkut ak ñi nga xamné ni nii recensement bi guur ci ñom ay daal xamna 1800 personnes daal xamna bokku na ci ñi nga xamné japp nañu nañ leen seen tur ak seen sante yépp mi ngi fi ak seen adresse. wa lolou ba tey ci tawfeexu serigne bi la bokk rek ndax jumtukaay yi moo sut bi fini li liñu serign bi taw fexale gun ci ay jumtukaay suñ togon ay weer yu bari yo xamne ni amuñ ñi fi andi ay jumtukaay du tay ñuy dox 100% 100 100 faaw ñu mën nañu dox téeméer téeméer téeméer téeméer am ñala du ma neel waye 100% dañ koy dox sax du yàq dara ci liñu liggey ndax amul ben alxames bu am te sëriñ bi ci bopam ci ndimbalal ndimbal ndimbalal suñu borom li jaarale ci barkeb sëriñ bi lo xamne nit bi waxu ak tankam ñew andi bi ay jumtukaay yoo xam ne bis boobu man nañ ci liggey bam jeex kon euh euh manku won dara ci ay liggeyu kay ma sha allah lepp nga dox Mouhamadou Mustafa Bousso waaw ah, man ben way la ci ni rek sëñ bobu mo liñ ci yok rek moy mooy sant ya xarale gi nga xamne ñoo taataan ci woon lii ci barab bu tedd bii di jumaay Serigne Touba ji ci daairatu bi di ashabul jannati muy leerlu point com Darou Khoudoss ñoo ngi leen di sant bu baax ci ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ne bu ngeen rombee dëri aljanna yi na ngeen for na ngeen ci for ñu ne ko yow yonent bi yàlla bi fan mooy dëri aljanna yi mu ne mooy fi nga xamne dañ fay waxtane yo xamne ay jarign yi rek la te li ngeen di ci si eh, am na mbokk yi ño xamne ñi ngi romb mboro mi te xamuñu doxalin ni waye suñ ko gisee ci yeen day melne ne eh, danañ ci for ci dëri aljana yi kon yoy ñi ngi leen ci sant bu baax di ñaan itam eh, seen li ku ko diglu rek yalla na yàlla yëkkatee noonu seen bir mi bu ngeen yëk ci seen bopp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ngeen ngeen mucc ci tam ak bak ak ndox ak baax lépp ñu ngeen am àddina baax